dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi xam ngeen ne Sénégal nag tey jii la ñuy taxawalaat beneen gouvernement bu yees yéenekaay gépp xëy fésal ko nag ibbi Le Soleil mu ñuy xamal na Maxime Sassou nekk xamal ne nag gouvernement bu yees bi boo moytuwul nag ñu nekk ci géew bi dina bëri ñu ci génn ndax ni mu gisee daal jàpp nañ ne dañ ko bëgg a séeréer seen bopp daanaka daal dañ ko bëgg a wàññi journal bi di Les Échos daan ñi indil moom it dem moytuwul nag beneen ancien ministre dinañ ko fi gis mu nekk nag ministre boo xam ne nekkoon na ci Abdou Diouf yoroon ci économie yëpp nekkoon ci philosophie ko xaar ci loolu nag jàpp nañ ne Ba loolu dina naqar ci ay mbiram ndax ministre des finances dinañ ko xaaj ñaari a nag moom daal di sampub laaj di Mohamed Boun Abdallah Dionne ne mu gisee jàpp na ne dina ci génn ndax Mohamed Boun Abdallah Dionne dafa démissionné ndax gis nañ ne moom président def nañ ay waxtaan lu yàgg te dañ daan def ko démissionné dañ la daan jox leetar buñ la war a tabbaate waaye ba ci ministre yi ci duggoon ñoom ñëpp te buñ seetloo tamit discours premier ministre ak discours bi nga xam ne Macky Sall def na ko daanaka dañ cee fàttalente rek ñaanalante ci bu baax kon Mohamed bun Abdallah Dionne du ci duggati journal bii de Le Quotidien di xamal ne nag moom li mu gis mooy premier ministre daal la ñuy génnee ci Sénégal premier ministre daal bu moytuwul dootu fi amati ndax buñ fàttalikoo nag gis nañ ko fii ci jamonoy Abdou Diouf nag bi na ko fii waaye ñu gis na Macky nag moom def na fi parrainage ñu ne cell mu bëgg fee def li nga xam se ne moo di jële fii li nga xam ne moo di premier ministre baa du fi indi coow lay coow

moom ab organe la war a am ngir mu wax li mu bëgg a wax lépp ñu daal di koy daaneele ak fi nga xam si ne moo di suñu làmb suñu làmb nag moom daal ñuy xëyal fi nga xam se ne moo di Gris Bordeaux ak ki nga xam se ne moo di Bombardier moom nag ñuy wax ne nag seen combat dafa mel na taxaw na ndax ki nga xam ne moo di Pape Dialès d'accord na li mën a xew mooy revanche la ñuy xaar jërë ngeen jëf mbokk yi loolu la leen indiloon